leetar bi ci topp ci yi daa bàyyi ko ci sëriñ bi ñëw ci borom daaru bokk ci mel alxadim ila ibrahim leetar bi ñaareel bi sëriñ bi da koo tàmbalee aoudu billahi min ashaitan rajim wa inni aiduha ba fam yam tàmbalee bismillahi rahmani rahim julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci alhamdulilahi rabil alamin wa salaamahu ala xayril alamin teg ci amma baad daa di ne képp ku dem ba yem ci wax ji na xam ne daa am lu ma bëgg a leeral ci sa mbirum bopp loolu mooy yàlla suñ borom dama def ci maqaama ci daraja joo xam ne da koo nëbbu xamalu ko kudul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ma teg daal yonent bi dong la ko xamal moom yàlla ne looloo tax man ginnaaw yàlla da koo nëbbu xamalu ko ku dul bi man nag sutura soosu duma ko xotti di ko leeral moo tax mu ne wa ana laa ahtiku dalika sitra duma deñ daal di wax ne yàllaa ma def buntu yërmande ci kaw suuf def ma it may buntu texe koo xam ne nag yàlla xamal na ko lam ma dencal foofee xamal ko ni ma doone buntub yërmande ak buntub texe mu ñëw ci man jaare ci bunt bi loolu moom dama ciy dolli rek sant yàlla fala yasidu ni illa alhamda wa shukra koo xam ne nag xamul dara ci ni ma yàlla defee may buntub yërmande ak buntub texe xamut la ma yàlla dencal foofee ñëwul lool yi duma naqari fala yusiu nii dalik ndax nee na koo xam ne nit ñëpp wan ko ginnaaw ak nit ñëpp dëgmal ko ñoo yem ci moom kooku mooy ki jege yàlla jege bi sallallahu alayhi waaye koo xam ne nag moom nit ñi dëgmal ko ak nit wan ko ginnaaw yemut ci ñoom yemut ci moom am nañ ak wuute ci xoolam kooku moom nee sori na yàlla lool sori yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam loolu na sëñ bi daa mel ni moom ak jagle la ko ci yàlla defal ndax kori gi nga xam ne fii la ko jullee ci réew mi nit ña bari lool ñépp sax mënuñoo digg kàddoom nit ña di ko di xëccoo lalal ko si jaala ba tey bëgg xeex moom daal kër kër ji bari lool kori googu nee na moo kori ga ko fekk ca tukki ba nga xam ne waaj na bu noppi gisul kenn ku mu àndal julli ñaari jigéen daal lay gis bu kàbbaree lu mu def ca julli ga rek ñu koy ree ndax ñooñu xamuñ lan mooy julli la muy def xamuñ ca dara ñaari ñooñu dong la gis yaari kor yooyu nag nee na xàmmewu leen ci xolam mu teg ci ne man nag ba ma yàlla ñoddee boole maag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole maag alquran boole maag xadis ñoddil ma boppam daal nee na booba ak ba ci waxtu bii may bindee leetar bii muy bindee mbind mi musuma dañ nag di doon dëgg-dëggi jaamub yàlla doon dëgg-dëggi liggéeykatub yonante bi sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal ko nag liggéey boo xam ne kenn musu ko koo liggéeyal ku dul saxaabaam ña